Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen di gërëm leen sant yéen a ñëw les programmes de Salam Vision tey spéciale édition di fàttaliku euh, sëñ Babacar Sy xalif Babacar Sy nekkoon ci xalif général des Tidianes Euh, génn àdduna 25 mars 1957 25 mars 2021 am na tey juróom benn fukk ak ñett ñaana ko yàlla yàlla xaral ko àjjana yàlla dolli ay leer bàmmeelam suñu Babacar Sy mooy kan te ñu ngi jàkkaarloo son petit-fils di Khalifa Babacar Sall euh, nga xam moo ko toogal fii Pikine di président de l'Institut international de la Zawiya suñu Zawiya suñu Babacar Sy monsieur Sall asalaamaaleykum yaa ngi jàkkaarloo askanu sunu gaal tey lan Sëñ Babacar Si lan lay fàttaliku ci bés bu tey. Euh, d'abord maa ngi nuyu téléspectateur yëpp di leen jaaree ci bés bu tedd bi nuyu Sénégal yëpp mbootaay bi tey vraiment bis mbégte la bis bu màgg la ndax bis bu kiñ koo xam ne kenn du ko naataat ne kenn ak ñu yëpp la ko mooy bis yi muy nag bis bu di fàttaliku ñaan di ko ñaanal yàlla yokk leeral di ñaanal suñu bopp mbooloom jëpp bis bu màgg li si ñun daal te bis boo xam ne tam bis bu fonk ndax Sëriñ Babacar kenn la si Sénégal da nag bis bi daal bis bu màgg la si lan ngeen fas yéene def tey si ngoon am nay am di jàmm yi fi teew dëkkandoo yi askan bu takku ñëw euh, ndokkeel ko ziyaare ko di ko fàttaliku. waaw bis bi day dafa am ren yoo xam ni ndax ni ñu ko daan defee ak ni ñu koy defee wute na ndax dafa am daal. mbas nga xam ni tey ñu koy wax Covid 19 bii moo tax bis bi am particularité ndax dañ ko daan célébrer toute une journée maanaam bu ñu xëyee dañuy def lecture séance bi lecture du Coran jàng alquran wàcce alquran wàcce ay kaamil ñaan ngoon gi tam daa moom lañ ko def pour di ko fàttali waaye ren dafa ndax eh, mbas mi tax na ba ñu respecté mesure barrière yi mhm. dajaloo bi tam mhm. nekk na loo xam ne dëgg dëgg tam dañ ko moytu daal mënul mhm. ñàkk nag waaye itam dañuy jël ay mesure daal loo xam ne daal euh, wàññi potassium feebar moo tax def bu sonn na rek ñaan wàcc kaamil rek mooy l'essentiel waaw def waxtaan bi ndaw fàttali delloo kii delloo waaw mbokk ay enseignement am waaw si ay digleem ndax ñun loolu suñu référence ci ay waxam ci ay tegtaleen ak ay jàngaleen hmm. ci loolu la ñuy basé wu moo tax nag ñu koy fàttali hmm. benn question ma lay posé muy euh, am na benn institut international de la Zawiya ci Babacar Sy lan moo lan mooy objectif institut boobu institut institut boobu waaw objectif institut bi maanaam day toog xalaat mu daal hmm, sëñ Babacar dafa nekk euh, nit koo xam ne. booy kaay la minti dimension. Hmm. booy kaay la te dafa def Sénégal loo xam ne. Hmm. rëy la def gis. kon nag amul luñ ko mën a. sargale daal Kamil Omer loolu defar ko këram biir këram ndax fii këram muy ñaari parcelles yi di quatre mille seize quatre mille dix-huit mu def ko bi zawiya zawiya xam ne moom mooy jiit képp Sénégal ndax suñu mbaare ko kenn mos ko def zawiya mu nitu yàlla yi maanaam day dem day leen fàtte yu bari parce que <laughs> waaw moo tax ñun tam ñu am xalaat boobu hmm. nit ku nekk nag da nga am sa mission ñu am boobu ñu nekk dañ koy defal fii këram hmm. saw te moom aussi jàngalekat la woon ndax hmm. moom moo jëkk a créé daar ay daay waaw boobu na ci biir këram ñu defal ko ndax nit génnee àdduna dafa dafa am luy wax sadaqatul jaariya maanaam boo koy fàttaliku bu dee teen wala garab wala comme lu mel noonu école wala institut maanaam di ko fàttali ndax jàkkee xam nga ni wala zawiya ku ko defal eh, dëkk maanaam fàttaliku mënu mënu weesu loolu ñaanal eh, institut tam mu nekk li nga xam ne institut de formation am na nag particularité parce que bu bari de jàngale alxuraan xale yi jàngale alxuraan rek bàyyi leen ñu jàng la euh, xalaat ni bu fekkee mu nekk formation boo jàngee alxuraan bu pare nga def sa formation professionnelle bu ëllëgee doo wër di yalwaan wala ngay tàllal loxo wala ngay hmm. taxawal da ngay hmm. génn rek rek commencé sa liggéey hmm. ndax da am mécc moo tax nag institut boobu am particularité ñu fas yéene ko nag taxawal si ah, ay moyens d'abord waaw yalwaan yi nag tàllal ñu ay loxo tam waaye nag bonne volonté boo xam ne tam am na si yéene xam nga soo toll ci yàlla mhm. parce que yàlla dafa wax ci alxuraan man bana laaha masjid mhm. bana laaha baytu mhm. jannat képp koo xam ne tabaxal na ma jàkk daana tabaxal euh, kër ci àjjana te def naa ñun nag buñ fekkee ñun ñu euh, liggéeyal yàlla ëllëg ci néegu yàlla yi voilà loo ci def rek maanaam lu jëli ci waat ci yow ndax yàlla moo la koy fay waaw képp koo xam ne mën na ci def ñàkkam ndax ba jàkk benn rek du ko tabax ndax rek ñu boole xeet yëpp ak euh, képp ci leen a jàpp ñu waa kuñ def tam ci kër xamal ne defaloo ko nit waaye yàlla ñu koy defal ndax day wax nag ci kër laa maanaam néegu yàlla. néegu yàlla nag loolu def moom sa bopp ko def. léegi balaa ñu taxale kooku la mooy si dernier message bi ngay euh, lancer à tous les Sénégalais qui nous suivent actuellement. waaw message bi de mooy ñu delluwaat ci yàlla la. Hmm. ndax ci yàlla léegi nañu nañu jëwaat. kon nag nit war nga préparer su ko boo ëllëgee. bu hmm. demee nga am ba yàlla def jëfe jëf yàlla moo fi nekk nag te boo gisee jamono yi ñuy mel ak lii xew léegi lépp maanaam bokk nit ñi bugal wala natt yàlla kon nag ñun am lu yàlla te ñu war a delluwaat ci yàlla mooy suñu dara daal waaw su nag Sénégal yëpp waaw

c'est une date historique pour moi. Parce que c'est une Babacar C'est un homme multidimensionnel qu'on ne présente plus. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa Donc, euh, cette journée-là, nous la commémorons mm les, tous les mmh. les ans. Mais Corona oblige. mais <laughs> il y a une particularité cette année-ci parce que avec le Corona, mm. le Covid, donc alors euh, on a préféré euh, célébrer ça faiblement. Mhm. respecter aussi les mesures euh, barrières. Mhm. et coronavirus. Mhm. oui. donc euh, d'habitude on mais cette année-ci on a fait des restrictions. on a préféré seulement. Euh,

Euh, concrètement qu'est-ce qui est retenu cet après-midi euh, devant les amis, les fidèles, les parents ben oui, mmh. comme je l'ai dit tout à l'heure, mmh. euh, ah. si ce n'était pas le Covid, mmh. Euh, cette maison-là sera la convergence de mmh. tous les clients, voire mmh. les musulmans. Mmh. comme d'habitude, comme toutes les années. Nous avons à, euh, à célébrer avec une grande euh, fierté. Euh, cette année-ci, voilà, bien sûr, certains ne pourront pas manquer, certains amis, certains sympathisants, mhm. certains talibés. venir ensemble, prier ensemble, euh, le récital du Coran. Pour respecter le maximum les mesures barrières. Une autre question, euh, vous avez mis sur pied un institut international, la Zawiya euh, Sini Babakassi. Quels sont réellement les objectifs de cet institut devant les et comme la Zawiya. Mmh. la Zawiya, c'est un, lieu de recueillement. C'est un lieu de recueillement. Mmh. Mmh. De prière. Un lieu, une mosquée. loolu benn trente tonnes juróomi c'est pour former a remarqué après euh, avoir obtenu, après avoir étudié le Coran en on a vu que les enfants qui prennent dans la rue allé manier. n'a pas vu ça de très bon niveau. Donc, euh, voilà pourquoi nous voulons, après l'étude coranique, alors que les enfants obtiennent font une formation aussi professionnelle, alors exercer moins son métier, ne plus à temps de la vie, qui est Donc voilà, pour terminer l'interview, euh, le dernier appel à tous les téléspectateurs qui nous suivent de près, un peu partout, euh, revenir très très rapidement euh, sur cette commémoration. liggéey seet bi laa mbaal waaye disparition du symptôme duñ bàgg donc Serigne Babacar ñu représente fii au Sénégal mais si ce n'est pas le public traditionnellement alors on l'a célébré vraiment avec une combat avec euh, mm façon très relevée. Oui. gamme a été organisé en Citerna. Oui. Des de lecture du Coran. Mm -hmm. Et vraiment, c'est une fête. Mais avec euh, la maladie, le COVID, chez les PSA favorable. Mmh. C'est pas le Ok. Monsieur Salle, euh, Salam Vision vous